yàlla ama moo ñu mën a taxaw fii di wax ku xalaat daaw ci heure bi ndax projet bi jaral na leen foog ma xam ndax projet bii ngeen di porté que les militants de Thiès de Pastef Thiès yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wóolu jiital ñu fii tey jii ñu ci njëkkee le ministre Birame Souleye Diop mu mel ni démb ci man bi ma président Sonko di woo ni ma dinaa la boole ak su Souleye Diop ngeen taxawal Pastef Thiès mu nekk un long chemin boo xam ni tous les coordonnateurs toutes les sections du département moom ñoo liggéey lii tey ba nga xam ni buñ ñu woowee huit heures nañu dañuy campagne ngeen mën a feesal boulevard bi ñuy remercier tous nos alliés di remercier le maire de la ville Babacar Diop le maire de Thiès Est maître ñoom lañu àndal ndax président Ousmane Sonko dafa jël toutes les catégories socio-professionnelles mu jëlee may woo la responsable des femmes de ñu investir ko ci liste nationale muy Marema Ndiaye may woo may la Benjamin nekk étudiante mi teewal waa Touba Toul doon Sintine mu joge ci Fandène di woo ñaaña jéeju bu Thiès Nord di soxna Jaara Ndooy yéen ñëpp ngeen xam ko muy monsieur le maire wala l'ex maire adjoint monsieur Amadou Dia. di wax ni bu nekkee ay ndaw dañoo booleek mag yoo xam ni ñoo ñuy tette di woo le doyen Ablaye Faye mu représenter tout le Diobass di woo le coordonnateur Cheikh Ciss di woo monsieur Mouhamed Sall mu MRDS nga xam ni ñuy ñëpp ñoo nekk ci Thiès di aussi des transporteurs sëñ Birame Sil di les transporteurs ngeen gis ni ñii ñëpp Mbaye Dia si ñi ah Abdou Sène sañ sañ sañ Abdou sañ sañ Abdou sañ Abdou yegg donc ñii la président Ousmane Sonko booleel pour ñu dem à la conquête du département ñuy wax ni ce fut un long chemin ba ñu yegg si fii et il faut ñu mériter seen confiance président Ousmane Sonko Thiès dafa yàgg sonn ci politique Thiès le pays le prix du sang fay na ko ci politique. ndax dafa nekk dëkk boo xam ni nguur gu bees gu fi ñëw pour jub pour jubal pour ju euh, bañ a jubal Thiès dafa mës a résister tous les hommes politiques bu nguur ñëwee rek Thiès fal opposant Thiès fal opposant Thiès di fal opposant président successif yi daal ne buñ développé Thiès dañuy daan cees nekk ci radicalité politique depuis 30 ans ñun ñëpp ñu toog seetaan nguur yëpp daal ni ginnaaw Thiès dëkku bañkat la nañ leen ko nasaxal économiquement ñu toog ñun ñëpp di seetaan li ñu amoon ci fleuron muy les chemins de fer ñu toog ñu dépassé ko wanteer ko tas tas le symbole de Thiès mu nas mu naax saay ñu pare dindi le bassin industriel le tissu industriel ak les bassins d'emploi muy NSTS bii bu ñu amoon ba nga xam ni tey président Sonko Thiès mooy la ville la région l'une région régions les plus riches du Sénégal ku tabax Thiès moo la jox ciment zircon bi cees la ko yàlla bàyyi baaxee ñun ñoo am géej gi di jaay di jox jën waa Sénégal mii ni Thiès la ñu nekk yàlla baaxee ñu pétrole fee ci Kayar booy xool richesse yi nga xam ni moo nekk Thiès da ngay defoon ni ñu nag Qatar ñoo waroon tolloo PIB ñoo gën a ndóol tey ci Sénégal loolu moo tax président Sonko député yi nga fal fii duñu ay député yu dem di tàccu ak di nelaw dañoo war a porter un projet économique dañoo war a suqali Thiès ñu génn ci coowal politique ndax cees yàgg naa xeexal ay opposants ba ñu paree ñaata ministre lañ am depuis 2012 ak DG ci Thiès tey la dëkk bi gën a ndóol ñu ne nag li ñu liggéeyoon présidentiel buñ ko yàq système bi li koy jeexal ñetti mbir la bi gënoon a am solo mooy ñu dagg bopp bi waaye ñu ne dañoo bëgg a jebbi ñu ne leen déedéet ñu def ñaari pôle ci opposition Macky Sall la ki ñoñam déggul Sénégal daa xiif daa mar moo tax mu bëgg a ñëwaat nee nañ ñoom ak ñi mu àndal ak Amadou Ba et consort nee nañ dañoo bëgg alal ji ñu sàcc ci réew mi ñu xam ni yoon war na leena a tongal ñu làqatu mu génn leen ñu ne dañuy dellu ci ñi ñu sàccoon pour ñu làq leen kenn musul gis loolu ci àddina sàcc boo xam ni day dem ci kër xamu sàcc ni ko nëbb ma police bañ maa jàpp loolu la ñuy woo ñoo lànk bu ñu joxee alal duñ ko jël ñoo ko lànk kenn sàcc suñu alal ba pare ñëw ni day lay laaj suñuy voix ñu jox la immunité nga mën a am impunité mën a rees lekk xaalis bi mu rees du rees mukk te dëkku bañkat bii di Thiès fii lañ koy njëkke ñi si des ni ñoom président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bu ñu nekkee ci réew mi ak seen référentiel vision 2050 ñoom pare nañ ci carrière politique ñu nekkoon nañ leen outil majorité pour duñu voter budget duñu fay salaire ñu dindi subvention yi ñu def ci énergie ak produits yi ndax réew mi nërmeelu lii mooy projet opposition est-ce que war ngeen a bàyyi opposition bi di dem assemblée ba fay am majorité ñun ay député lañ yoo xam ni bu ñu toogee ak suñu kilifa président Ousmane Sonko ak ministre yi nekk suñu ginnaaw di liggéey liggéey bu am solo dañ leen bëgg a wax ban yoon lañuy ñuy jaar pour suqali Thiès dama ni Thiès dafa war a am hôpital bu bees ñëpp xam nañ ko hôpital régional mënatul yore Thiès. xam nañ ni raay bi dafa war a dekkiwaat fii ci Thiès xam nañ ni suñu mbuurkaat bii nga xam ni moo ñu dese ñun amatuñu armeel ñun booy dugg ci Thiès amuñu fu ñu tuur suñuy mbalit xam ngeen ni fii mënul nekk décharge xam ngeen ni soxla nañ ay lycée yu bees xam nañ ni Thiès dafa bëri ay quartier yoo xam ni kenn lotiiru ko quartier yooyu yëpp foog ñu prévoir que mbuurkaat bee fu ñuy fu ñuy reloger ñi nga xamante ni bu ñuy restructurer carte bi foog ñoom ñu jóge fa moo tax président Sonko ak Jomaay bi nga xam ne bi ñu ñëwee seen première décision moo doon sauver Mbourkat buñ ñu gën a gore nit ki du pour jàppale sa dëkk nga naan da may nu serees ko sans voix APR ak Amadou Ba ak consort ci dëkk bi ñu ngi leen di ñaan ko ci laay terminer projet bi ñu am du am majorité assemblée dañoo war a déjjati benn système maa ngi koy wax bopp bi dagg na mais day jebbi wax pour mu bañ a jebbi nag bu ñu dem ñoom assemblée foog ñu nangu ci ñoom assemblée bi système bi mën fee jóge ci lu gën a gaaw yàlla nañu yàlla may campagne yu jàmm na ngeen ko tas ñëpp xam ko suñu but du élire ñii mooy élire suffisamment de monde pour ñu nekk ca liste nationale ba loo bokk Pastef loo sori sori ñu fol la ba ñii ilaa yow mi diin dootuñu taxaw Sénégal maa ngi leen di remercier di leen gërëm jërë ngeen mbokk yi xam ngeen ne ñoo ngi ci mois d'octobre